leen di jàmba sant yàlla alhamdulilah mais démb ñu gis benn image lambu bu rafetu ci lambu mooy ci côté saa kees ak rek si signature ngeen di magu lambu sa jour ngeen kaas pour xale yi dañuy rafetal image yi bu ñu gis mbaa duñu am problème sponsor yi yëpp dawaat je suis désolé vraiment je suis très désolé parce que tey jii mbër mu euh, mel ni euh, rëg-rëg ak mbër mel ni Sa ak lu ñu def ci lamb ñoom am nañ ci ñoom yaakaar pour ëllëg ñoom tey jii ñoo war nekk roi des arènes kon ñoom seen bopp ñoo wara a rafetal ndax image yooyu xam nga jamono ji nga xam ne euh, avec l'internet fu nekk lay dem ci àddina te am na ñoo xam ne dañoo nekk bitim réew doon ay tubaab euh, bëggoon làmb mais bu ñu gisee yenn jëfin yi da leen di wàññi deuxièmement promoteurs yi am nañ problème parce que sponsors yi ñoo leen di jàppale mais sponsor yooyu de di leen jàppale bu fekkee ne gis nañu certaines images parce que sponsor bëggul lu taxal image am mais tey jii man du ma indi sama produit ba noppi ñu koy tilimal ñuy tilimal sama produit donc tey jii mbër yi loolu ñu def seen bopp lañ ko def defuñu ma ko defuñu la ko yow mais seen bopp lañ ko njëkk a def soo ko def waa làmb kon ñoom nañu xoolaat seen bopp amaat retenu xoolaat seen bopp te jéem a rafetal te xam ne làmb ji seen loxo lay mujj kon nañ rafetal. mais Papa Guédiawaye Thiaroye lamb yàgg a dox seen diggante Balla Gaye Ousmane Diop jar na fi Balla Gaye Issa Pouye jaar na fi ay lamb yu garaaw jaar. dama ne làmb ju ne jaar na fi diggante Guédiawaye ak caaro yi bi la sport bi pour quelque temps la mu jeex ngeen joxante loxo gis nañ fi diggante Khadim Ndiaye ak Balla Gaye gis nga tey ni ñu mel gis nga Ousmane Diop bëri woon na fi ak Balla xool nga tey ni ñu kon nag xale yi nañ sóor ëllëg ëllëg du añ du reer waaye lu mat a sédd la nañ koy sedd bu baax a baax. bi am na favori. ah saa gisee am am na favori. combat bi man duma jox kenn favori ndax kenn ku ci nekk dangaa am sa bëre bopp. Sa Thiès lay bëre moom day day day def action ci kaw action rëg-rëg day jàpp di liggéey di jàpp di liggéey di jàpp di liggéey ba am lu mu bëgg bu ko Sa Thiès mayee loolu. mu am avantage Sa bu ma bu may loolu Reug Reug ah avantage Reug waaye nag Sa Thiès it bu mu bàyyi gis nga man jubb ba ma daan wattu ñu ma koy xàmmee bis boo ko watee kenn du la ko kenn dootu la waaw. communication rek mën naa ko buñ bëree fukki combat dama lay daan. waa loolu kii communication rek pour déstabiliser ko rek la loolu rek la du leneen waaye nag euh, lamb ji ñëwagul le 5 la bu taxawee ci géew baat bu siffle fa la yëf yi feeñe waaye kenn ku ñëwee mën nga daan sa morom daal. waaw mais duma jox. dóor mu daanu combat bi Pape. ah dóor mu daanu mën nañu ko see mën na ci am waaw mën na ci am dóor mu daanu mën na ci am mën na ci am ci kaw ay action yu def benn coup rëcc dal un coup fatal mu mu mu mu mu mu mu am effet ci mbër mi mu dal mu daanu. damay dégg yéen gars yi ñu ne bu saagis téye ba quand mën na machine man nag match nul mënu ci am non non déedéet rëgg-rëgg ak Sa Thiès du loolu man bu suba si nii dina ma jaaxal lool wuu loolu mënul nekk non non non xalaatuma ko sax doon du ay mbëri match nul Sa Thiès fo fo fo mos na match nul Reug Reug waay waay duñu mbëri match nul waay booy non bu leen xalaat loolu sax <laughs> loolu bu leen ko sax xalaat kii daan daal laa ko xam waaye kenn ku ci nekk boo bàyyee sa manin sa morom am na clé bu mu la daane waaw loolu moom xam naa ko. mais ku ne am nga ci point fort boo xam ne bu la fa sa morom eggee nga. ma ma amul problème am na loo xam ne bu ko Reug Reug seetaane ba Sa Thiès yegg ko fa du baax ci moom waaye am na loo xam ne it Sa Thiès bu seetaanee ba Reug Reug dajale xam Reug Reug day jàpp di dajale dajale googu na ko moytu de bu ko mu ko bàyyi mu dajale de Reug Reug bu dajalee mën naa yëkkati sax Tapha Tine waaw. na def attention. jaajëf jaajëf. mbokki làmb mbokki internet Actubuzz ñu amati mbégte kontaan bu baax a baax mais ñu amati mbégte bu baax Babacar Mbaye di dalal ki nga xamante ne mooy coach Elas ah. coach Elas nag gis nga ay waxtaan yuy ñuy def maamu toujours ci làmb day nekk ay waxtaan yu pertinent yu àdduna di bàyyi xel mais coach Elas dama koy laaj rek ci benn dimension làmb tey jamono ji ñu toll mooy diggante Reug ak Sa Thiès coach Elas cooli bari ci combat bi loolu coach Elas. jërëjëf Abou maa lay siyaar bu baax di la bëggee di amaat contentement ak mbégte. jàkkaarloo ak yow ñu war a waxtaan tuuti ci làmb ci euh, li nga xamante ne nii mooy euh, euh, Sa Thiès ak Reug dafa nekk combat boo xamante ne nii combat jànq la kii ne warumaa ne warumaa jël Reug Reug ne fi nga nekkoon ba booy ñaa daan la maale ñaa daan la ba ma fa nekkoon duñ ma daan lan moo tax am naa bëre bi am naa ñaan bi mais aussi encore une fois am naa ngëm-ngëm bi mais làmb doxewul noonu làmb saaboo boo jàppee ne yaa man rek jour boobu mën nañ laa wor ñu ñoom ñaar nag ñu nekk ñaari xale yu nga xamante nii tey ku ne yaa man da ngay nax sa bopp mais ku ne am na lu la jik kenn ku ci nekk am na lu la jikk saa Thiès li mu doon def da ko war a gën a yokk vigilant rapidité ak xeex bu sax bala muy jàppanteeg Reug Reug Reug Reug mi ngi koy woo ci ne ko boo taxawee dinaa ñëw mais boo ñëwee tamit dinañu daje gëmul loolu daa bëgg a jàpp Sa Thiès war naa jure war naa bëri juróom minutes yoo xamante ni ño euh, Reug Reug du jàpp ngembam bu ñu fàtte ne Sa mën naa jàpp ngemb tamit bu ñu fàtte loolu ci Sa Thiès laa ñëwagum mën naa jàpp bu lool te rapidité bëreem ci li ma gis moo gën a mobile Reug waaye Reug foo ko yegg ci biir bëri darul jaaxle loolu mooy problème bi rëg foo ko yegg ci bëri du jaaxle boo ko wëree ndomb du jaaxle boo jàppee tànkam du jaaxle boo ko boo ko étowee sax du jaaxle loolu li la koy may mooy compétir lu bari te maa ngi dégg ñu naan ay dóor mu daanu mën na ci am du ci am ñoom ñaar seen seen façon yu bëre mënul am dóor mu daanu mën nañoo bëri nag ci cinq minutes mu jeex parce que ñoom ñaar kenn ku ci nekk am na ngëm-ngëm bi mais ni ma dégg Sa Thiès waxee ko bum mu ko bëriwaalee. muy lan. jël na combat bi au sérieux mi ngi ciy entraîné. gis naa ko mi ci ciy entraîné bëgg na ko waaye bu wanee ne maa man ah. waa ji kenn manu ko maa la wax lii tey man waa ji ki ko man mooy ki ki toog ci dënnam wala arbitre yëkkati sa loxo lépp lu muy def lu nekk na wóor bu dee xeex la ah. na xeex ba gaañ ko bu ko gaañul tàqali ko ak sagoom wóorul il faut que mu jëm koo tàqalik ak sagoom ndax mbër mu xamante ni nii bëri bi daa bët te foo ko yegg du jaaxle il faut nga jëm koo tàqalik sagoom te rëg-rëg bu ko Sa Thiès bëggee daan il faut mu jëm koo tàqalik sagoom dañuy mobiliser buñ feccee mu neex buñ summee koo nga xam ne ñoom ñaan ñëpp bëgg nañ bis bi le 5 boo ñëwee fii di nga xam ne mag ñi yóbbu luñ xale yi dara te xale yii na mag ñi préparé ku ci bañ a dem retraite waajal ne ñoom ñaar ñu ngi ñëw ku ci daan ak ku ci daanu. parce que làmb daa am fu mu lay yóbbu. mais nag buñ fàtte ne làmb kese la. bis bu nekk jàll na fi. ñaaw na trop. ñaaw na rafetlu wu ma ko. rafetlu wu ma ko lenn dong moo koy indi sëriñ si dong. parce que abu man man coach man mënu ma laa wax nga entraîné te gisuma kenn ñu ñëw ci biir ma lay échefaloo gisuma kenn. du am violence xam nga. xam nga bu may taxaw fii di la expliqué du am du am benn violence waaye tant que sëriñ bi mi ngi naan la defal lii sa xel ak ñi la àndal nan la boo deful loolu doo daan il fallait nga def ko loolu mooy indi violence bi. ma dee nii wax ni leen ñun ñëpp benn lañu nañuy jéem a récupérer seen xaalis di ci am luñ ci def seen poos di uti leneen luñ ci def te wàññi sëriñ si. chaque jour sëriñ si ngemb la ba yaakaar ni ñoo ci nekk bu arbitre sifflé doo bëri deux minutes daanu nga def ci xaalis bu dul jeex damay citer rek Balla Gaye bi muy bëreeg Boy Niang ngemb nañ ko lool wallaahi azim ngemb nañ ko lool waaye kan moo ko waxoon ni jour boobu jël boobu di nga ko daanu <laughs> entraînement rek moo wóor entraînement rek moo wóor abu ñuy ñaan yàlla yóbbuñu seeg jàmm supporters yi ma leen wax ni leen kenn ku ci nekk na sañ sa ba jekk ñëw te xam ni Sa Thiès bu dul woon moom rëg-rëg du am xaalis bi mu am rëg-rëg bu dul woon moom Sa du am xaalis bi mu am ay millions lañ fay nañ ñëw sañse toog xool seen mbër ki daan daan ki daanu xam ni dalaan daan rëg bu daanoo du gàcceem Sa Thiès ma daan du sama gàcce déedéet Sa Thiès bu daanee du gàcce day amaat combat ci combat yi mag yi la jëm nañ bàyyi loolu xel bu baax a baax a baax a baax. voilà mais ci ci côté xeex El Hadj ñoom ñaar ñu xeex. ci Sa lay gën a arrangé. Ah, avantage Sa bu baax. ok xeexam moo gën a ñëw moo gën a gaaw. te euh, Sa Thiès dafay xeex a pare di woor ci biir xeex. parce que mbër mi muy bëreel bu indee loolu dimanche bu sooba yàlla ak yonent bi combat mën naa bañ am deux minutes te day daan bu sooba yàlla ak yonent bi. xeex ba pare wor ci biir xeex bi wor dem bëri ji parce que waa ji nga jëm ko taxale ko sagoom comme ni la ko wax naa la ko fukki yoon boo ko taxaliwul ak sagoom mënoo koo daan indil cent quarante cinq kilos da koy gën a arrangé da mën a bëri poids lourd moo tax. mais Sa li koy avantage foofu mooy dafa mobile ci yaramam. moom bu jëlee cent cinquante kilos dafa mobile ci yaram daa moom yaramam. te combat bii lay wane boppam xam ni carrément man fi ma jëm du ko musul daanu moo may téye wala punkal moo may téye daa am fu te nag dafa gàddu lu bari muy lan géejewaay wane na ne Sa moom da ko war a téye échant bii ci loxoom. relever defi ba pare wan ni magam da ngaa juuman aal ma ngemb li li des ci sa carrière man maa koy égale loolu nag dimanche la koy wane. ngëm-ngëm lay doon respecter adversaire bi lool aussi encore une fois parce que Reug boo ko respecté doo ko daan de il faut nga respecté ko xam ni dafa mën a bëri lool mais dafa ñeme. dafa ñeme def ci ngembam ci yaramam. waaw nañ bàyyi loolu xel dafa. ñeme dafa ñeme dama ne la dafa ñeme def ngemb ci ci ci yaramam. neexul jàpp. neexul jàpp de. ay gëlëmal yii nii wala ay xool ne gisuma ko yooyu noonu amul da lay gis. bu gëlëmul doo ko daan bu réerul. wallaahi azim lu leer laa la wax. wallaahi yaa ngi wax lamb dama la côté bii boo fi jaaree. yu ci bari moom lañuy ñuy ñaanal. dëgg la de. nag. Euh, ñu def seen yaram loo xamante nii tey jii jàpp leen du yomb waaye lii daan yow yaa koy def lii daan yow yaa koy def. voilà. jërëjëf kër Séras. merci Abou. ji rafet na loolu. ñoo ko bokk. à chaque fois nag. dañuy waxtaan mais ma dégg damay damay xool. li ñuy waxtaan mais ñi xam lamb dinañ xam ni kii li muy wax ci lamb rek la ko teg. mais buñ jël ne man géejawaay laa dëkk rek. damaa war a wax li nga xamante ne nii déedéet ma damay décortiquer. wax li nga xam wax li nga xamante ni mooy arrangé ñaari mbër yi waaye man ki ma faral ci sama xol man xam naa ko ki ma bëgg mu daan xam naa ko te ba arbitre sifflé dinaa ñaan yàlla pour mu daan loolu rek la di la di la bu baax di bëggee